gars yi ibilis ibilis seytaane ibilis moom moo feeñu démb mu ne dama laa yóbbante si si si si Félix Antoine ma ne ko ma ne ko yow la maa déglu mu ne ma Mbaye Mandaw waxal ma Félix li mu wax noonu démb si guddi moom moo ko xalaatal boppam moom si ay xalaatam la ko waxee mais man yoonam nekku si moom daal li mu leen poussé woon moo la ñu ñu insister si viol bi ak menacement bi comme te nag jéem na ma ba sonn ma mutuwul fenn. lépp leen fi wax rek ñoom ñoo ko waxal seen boppam man moom moom moo yoon nekkuti si waaw iblis iblis saytaan rajim moom moom moo yoon ne loogu démb pour mu wax ko Félix Antoine noonu la kaabi demee